Hello guys, ladies and gentlemen. Welcome to our channel English in Wolof TV. Today's video is about how to improve your English fast. We will show you in this video the powerful way to learn English easy and fast. So guys, please watch this video until the end and you understand how to improve your English fast. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. ta'ala wa Kon gaay diñ leen niwat di leen wax ngeen dal ak jamm ci chaîne bi di jang anglais ci wolof wala learn english in wolof. Tay nak video bi di ñew tay mu nekk video bu am solo bu spécial wuté ak video yi ñu def ndaxte bi nekkul leçon mais nag mën nañ ne tamit leçon la parce que daf dana la dimbali bu baax bu baax a baax sax nga xam naka ngay def pour mën a jëmbal say anglais maanaam niveau anglais bi nga amee woon mu gën a yëg ci diir bu gàtt kon tey loolu mooy objet vidéo bi kon yaakaar naa ne am na solo jëmbal say anglais ci diir bu gàtt yaakaar naa ne ku nekk soxla ne ko ci koo xam ne day doog door wala nga xam dara ci anglais bu ko yokk kon di lay ñaan nga sétane vidéo bi ba mu jeex te mo ci amee yeneen contribution nga defal ñuko ci suufu commentaire bi ñun lañ ko gis bu ko defee bu ko jaré ñu def ci ay vidéo wala ay léral ku ci am tamit lo xamanteni si dañ ci bëgg ay léral nga bëgg ñu dikka ci ab ci ben leçon danañ koy manifesté wu danañ euh fexé manifesté ci ci suuf commentaire manam ngeen bind ko ci suuf ñu mën ko gis bu ko defee ci lool dañ suñ ci basé wu dinañ ci mëna def ay léral di wax ngeen abonné di bës j'aime bi di partager ndax loolu mooy jëmmal seen bit kaw ca kanam daa ngeen jëf kon ñu ñëw ci objet bi maanaam l'essentiel bi mu nekkoon trois points essentiels pour apprendre une langue bi ci njëkk mooy ay baat wala ay waat ci wolof ay waat naka lañ ko amee nga xam ne ab làng mën a su koo wax lu dul ne da am ay waat wala ay baat ay baat moom moo composé ab làng boo bëggee wax ne maa ngi dem maa ngi dem ab baat la maa ngi dem loolu ay baat la ay baat la ñu boole mu nekk ab wax kon suñu bëggee boole suñu bëggee am ab phrase il faut que ñu am ay ay moo pour mën a construire une phrase kon gars yi ci loolu lañuy ñëw tey naka lañuy def pour am lu ñuy wax vocabulaire. bu pour ñu am ay vocabulaire bari dama lay jox ñent concept euh, par exemple euh trois règles à appliquer mom moy lan la règle de reading reading okay listening okay ak ak writing ñett reading mom moy lan mom moy di lire listening moy diglu writing mom moy bind ñett yi mo mo fi am reading listening and writing kon dañ ñëw ben bu nekk ñu appliqué ko naka la def ba nga am ay vocabulaire yu bëree bëree bari maanaam ci diir bu gàtt kon yaakaar naa ne dina am solo. bi ci njëkk rek moom mooy liir liir mooy lan liir mooy fexe ba am ab livre wala dara PDF wala lu mën doon nga ciy liirantu maa seetlu nag ñu bëri ñu ci bëree bëri bari euh, xaw ma nag ci abonné yi mais ñu ci bare bari ci élèves yi ak ci commerçant yi ñëpp ñuy jàng ci anglais. mais seetlu naa ñu ci bare bëri amuñu temps wu liir kon leen digal moom mooy ñu am lu ñuy wax challenge challenge mooy lañ mooy na fexe ba am 3 mots par jour voire 5 mots par jour ki nga xamante ni si dafay door di commencé mën na jël 3 mots par jour maanaam ñetti baat ci bis bu nekk mu am ko boo amee ñetti baat ci bis bu nekk mu fexe ba bala moo tëdd ngir yàlla te yàlla tax mu lépp lépp lépp baat yëpp mu dugg ci boppam bu yeewoo mu nekk ci dem naka ngay jàngee da ngay fexe ba suba si nga jàng baat yooyu noonu nga xool ñetti baat yoo xamante ni si intéressé na la ci anglais ñu jël ko ñett baat yoy non nga répété ko ci bu dé ba ci digg bëccëg nga répété ko bo demee ba ci ci guddi nga répété ko té bo demee bay bëgg tëdd tamit nga répété waat ko parce que répétition dafa am dañuy wax naan la la répétition est pédagogique kon loolu noonu daf ci baax répétition bi ba tax muy dugg bu baax a baax a baax a baax ci parce que ci anam yomb kon lire dafa am solo ki nga xamante ni si ndax am na ubbiku ci anglais dama koy dama koy soññee loolu dama koy loolu sax dama koy euh, conseiller mu jël cinq mots par jour déjà rek yow ki nga xamante ne day jël trois mois par jour en une semaine dana am ci lu dana am lu toll ci vingt et un vingt et un euh, en en mois ci un mois bu nekk un mois bu nekk dana ci am lu toll ci euh, dana am dana am lu toll ci quatre vingt quatre mots yu bees yoo xamante ne si xamu ko woon kon loolu boo ko boo ko ba am ci trois mois boo nekkee ci rythme boobu am ci 3 mois da nga am 252 mois yu bees nga boor ko ak mois yi nga amoon kon yow yaakaar naa ne dootoo am problème mu problème mu euh, je pense maanaam problème vocabulaire doo ko dootoo ko amati. pour ki nga xamante ni si tamit moom cinq mois la jël par jour moom déjà moom semaine bu nekk moom dana am semaine bu nekk semaine dana am lu toll ci 35 euh, mois 35 mois yu bees yoo xamante ni ko woon mu ba mu ñëw ko ak la mu xamoon 35 mois yooyu noonu suñ maanaam par mois. ko moom cent chaque mois dana am toll ci cent quarante cent quarante mots voire cent cinquante mots par jour mu boole ko mooy yam xamoon loolu bu rythme boobu bu ko continuer ba am trois mois rek dina am quatre cent vingt mots cent vingt mots yoo xamante ne si ay mots yu bees la kon yaakaar naa ne kon ñaar ñun ñu am problème de vocabulaire ci ci anglais. la deuxième chose moom mooy nekk la listening listening moom mooy lan mooy di faral di diglu diglu. loo déglu ay anglais moo tax ñuy wax parce que jàng anglais fii anglais lañ fi jàngale loo déglu anglais déglu anglais nag mënees na ko defee ci ay anam bu dee ki xamante ni si dafa passionné ci musique ñu ci bari bari ci sénégalais ñu bari ñu passionné ci musique daanaka booy xool 60 pour cent di déglu musique kon yow mi nga xam ne def na nga mën a déglu musique dama lay conseiller ci lu gaaw a gaaw nga diglu musique anglaise parce que musique anglaise bi dafay dafay am ay vocabulaire yu bare bare bare musique yi ngay dugg nag mooy musique bi nga xamanteni ne ànd ak lyrics maanaam musique bi nga xamanteni ne si musicien bi waxee ñu bind parole yi ci suuf loolu moo tax nga mën a xam prononciation bi maanaam naka la lan la musicien bi wax ak tamit boo ko bëggee xam sens bi dëgg-dëgg nga dem yóbbu ko dictionnaire sinon doo xam ni ngay bindee kon dama lay may conseillé nga mën a nga dem déglu musique mais musique lyrics ki nga xamanteni ne si yàlla def na dugg déglu musique kooku dama koy conseillé mu dugg li ñuy wax speeches spiritisme mooy lan mooy ay discours discours ci anglais spiritisme mooy discours ci ci anglais. bu lay gën a conseillé nag moom mooy euh, motivational spiritisme maanaam les des discours motivationnels discours yooyu noonu dafay tax nga am motivation daf lay motiver bu baax a baax sax te dafa am ay vocabulaire vocabulaire yu riche lañu faral di am vocabulaire yu riche lañu faral di am motivational spiritisme da leen da leen wax ngeen faral di ko déglu même yow mi déglu mi sax mën ko. di faral di dégluwaale parce que dafa am ay vocabulaire yu riche yu baax yoo xamante ni si wax dëgg fi yàlla vrai anglais la ñuy faral di wax kon expertise and music mën na laa xel pour nga mën a améliorer sa anglais maanaam improve your English fast ok gars yi kon dama leen ni ko diglu musique wala diglu expertise wala ngeen di faral di lire liir di diglu dafa am solo beneen bi ci topp moom moo nekk writing writing wala sax writing <laughs> writing benn la writing moom mooy bind di faral di bind naka ngay def bay bind am ño xamanteni ci si ñu ci bare bari eh, surtout élèves ñom dañu faral di bind bind moom waxuñu dara bind anglais def ba baax naka ngay bindé soit da ngay ñew di bind ci sa bop wala nga bind ci événement bo xam dafa jàll mu neex la wala nga bind ci ngénte lu mel non manam def li ñuy wax na rédaction ci ci français def nako jang ci français wala sax fekké na mëno mëno def lool nonu na tok ci sa bir nek wala tok ci ben endroit di xalaat di bind loo def ngay toog ci benn ci benn bërëb ngay xool li la wër par exemple boo toogoon sa néeg ngay xool li la wër nga gis ne ab sa nit bi kat am na am na porte am na lampe ah am na par exemple am na yeneen ak yeneen am na table nga toog daan ne war waa man nga toog par exemple daan ne daal di gis euh, par exemple nu ma ko mën a waxee sax nga gis bunt nga nga ne nga ne there is a door yaa ngi gis mu ne ko néeg bi am na bunt there is a door ok nga daal di gisaat par exemple taabul nga ne is eh, am na taabul nga gisaat ba nga toog gisaat di gis di gis di gis loo gis nga bind ko loo xamut par exemple nga gis par exemple euh, nga gis mu am nga gis ci ci bunt bi mu am caabi nga xam te xamoo ñuy wax ci caabi ci ci France maanaam ci anglais nga dem jël nga jël moo moo caabi dugal ko ci dictionnaire bi dictionnaire am na dictionnaire yoo xam ne nekk français anglais nga dugal ko ci français mu indi ko ci anglais par exemple. boo paree nag mu indi li mu la ci kii bi nga xam ne nga bind loolu noonu par exemple nga bind there is a key mooy kale maanaam caabi ci anglais kon loolu dafay tax nga xam mooyu bare bari moo boo xamul da nga koy seeti ji ndax da nga koy bëgg a xam kon soo bëggee digg anglais il faut que nga dem wëri ay vocabulaire te vocabulaire ñu ngi ko mën a amee ci yii lu ñuy wax reading listening writing yii nii boo ko dee appliqué léegi tey nga dégg anglais man maa la ko promettre ñaareel bi moom moo nekk la lu ñuy wax prononciation Pronunciation, manam naka lañu tuddé body, wadi. kon amna lañu wax ci anglais pronunciation pronunciation ne so bëgg a améliorer maanaam lii dëgg-dëgg anglais parce que anglais la prononciation est très importante il faut nga mëna prononcer bax bax euh moy manam yi maanaam ñu mën a xam exactement la la nga dugg ñaari baat yu niro manam ab ab baat normalement rek déjà jox nga benen jox nga beneen baat ci bu bokkul ci anglais anglais daf bëri baat muy bëree bëri la am te boo prononcé mal rek c'est-à-dire kon am nga leneen loo wax lu bokkul la nga bëggoon a wax kon la prononciation est importante naka ngay def pour améliorer sa prononciation naan eh, ci ci lii bu gaaw a gaaw naka ngay def premièrement moom mooy bi gën a efficace la listening deuxièmement phonétique lan mooy listening leer nañ ko léegi nii mooy diglu diglu musique yi lay waxoon léegi nii wala nga diglu expertise wala nga diglu par exemple yenn yenn comédien anglais yi ak yenn américains yi ak di diglu la ñu ngi ko euh, par exemple euh, rap di rapporter football gars yooyu noonu ne leen diglu par exemple nga ci bàyyi xel diglu nag mën nga diglu te bàyyi xel boo diglu di bàyyi xel exactement da nga mën a xam lu ci bari bari ci li ñuy wax nga diglu di bàyyi xel ak di diglu musique lyrics si ak expertise sectorielle ok loolu dafa am solo ndax moo tax nga war a xam exactement mot bi nga gis ak naka lañ ko liiree ça que c'est ce qu'on appelle la prononciation ça a une importance ci anglais parce que beau prononce quand tu prononces mal ça veut dire que tu as, as déformé euh, normalement une euh, un mot donc la prononciation la prononciation est très importante nous bàyyi ci xel bu fekk bu weesoo diglu bi diglu bi wax phonétique lan phonétique phonétique après règle la bi ci dans toutes les langues ah langue yëpp am am phonétique maanaam leen nekk naka lañ koy bindee par exemple ab mbir ab baat danañ ko bind te pourtant nañ koy nañ ko bindee ak nañ koy léeree bokkee wuñ par exemple ci français dañuy bind prononciation ti on la ñuy bind ti on mais pourtant doo lii prononciation prononciation de non non da ngay lire prononciation si nga xam ne kon à la place de t dañ faa lire s loolu la wax naan la phonétique boo demee ci phonétique ba di ko bindee t s lay bind li nga xam ne la phonétique phonétique moom mooy dëgg dëgg baat bi liñ liñ li ngay dégg moom ngay bind du bokk tam li ngay gis prononciation gisoo prononciation prononciation nga gis te pourtant prononciation ngay liir loolu ñu xam ne la phonétique phonétique day day day bind li muy gis maanaam sax day day bind li muy li muy dégg mais du bind li muy liir kon soo boo bëggee xam anglais ab baat naka lañ koy liiree da nga koy yóbbu phonétique boo ko yóbbu phonétique mu wan la naka lañ koy liiree nga liir ko soo ko na nga koy liiree ci phonétique ba nun nun jàppal ne noonu lañ koy prononcé parce que la phonétique du trahir dama la ko bindee leen rek noonu lañ koy prononcé naka ngay def ba xam ba am phonétique bi nag da nga ko yóbbu dictionnaire dictionnaire rek léegi def nañ ko ci kon exemple bi ñu leen jox rek duñu dem ci duñu dem ci dictionnaire bi directement su ñëwee ak ñu bind fa benn mot xool ba xam naka lañ indilee phonétique bi ok kon gars yi ñii nii ci dictionnaire bi ñii gis ngeen nii nii ci dictionnaire bi par exemple ñu ñëw gis benn baat binduñ ñu smile nañ bës xool ba xam booy lii dañ leen ismil ngay lii waaye nañ xool ba xam naka lañuy naka lañ koy indilee gis nga li mooy phonétique loolu noonu ci kaw muy joxam noonu loolu mooy phonétique gis nga lim bind daf bind s mooy liñ liñ tëj liñ tëj liñ mel def ñaari crèche loolu ngeen xool liñ ko bindal s m a i ak l gis nga gis nga bind normal bi ni ko anglais di bindee ni mu wutee ak ni ko phonétique bi di bindee phonétique moom mooy lay wax li nga xam ne moom ngay liir mu nee na bu ñu koy liir dinañ koy liir dafa bind S M A L N ko kon buñ buñ ko dee liir naka la ñuy liir moo ko nay liir Ismaïl Ismaïl ok Ismaïl ñu xoolaat beneen baat Ismaïl nañ diglu prononciation bi d'abord. Smile. Ismaïl ok. Bima mooy prononciation États-Unis bi ñu xool États-Unis Amérique. small prononciation. smile. ok ñu nga ñu naan daanaka sorewul yenn baat yi duñ sore mais yeneen baat dañ ci sore. smile. quel soit alpha smile. ñu kalau beneen baat par exemple listen. gis nga listen ni ko listen. di dafa bind listen. anglais bi dafa bind listen. loolu mooy moo bu normal maanaam baat bi nga xam ne moom moom la ñu léegi ñu ñëw ci ñu ñëw ci phonétique bi gis ngeen ni ko bindee daf bind L loolu loo ci déggee mooy que ni tee bi doo ko liiraale gis nga tee bi moom kenn du ko liiraale moo tax indaaloo ko sax ci phonétique bi lii moo tax phonétique am solo da ngay xam lañuy liir ak luñ dul liñ liir tee bi liir nañ ko sax mais dañ ko boole ak nii moo tax moo tax daanaka moom ba ne liste day xaw a moo tax di ngay kon ñu diglu phonétique bi lu wax. listen. listen listen listen mënu ñu wax tamit listen listen listen kenn du ko wax su boba dañuy trahir écriture bi parce que fii nii après té bi euh oh, euh oh, ñono nga se s bi ngi considéré comme un oh, se listen. listen. bu moy bu américain ñu xol bu état bi bu Angleterre bi bu British bi la bëgg wax. listen ñu naat sorewul ñu xolal benen baat bu gëna xaw compliqué par exemple fada way faada ok voilà fada bi di papa papa fada gis ngeen ko bindé fada bu dee anglais phonétique anglais da da comme th e nu ngi koy nu ngi bindé dat the der yoy noonu day melni ku par exemple ku mat salamin comme ni nga xati arab fah moom moom nii lay bindee phonétique am boo gisee lu mel nii xamal ne daal la ci jublu léegi ñu xool lu lu naka la ko prononcé. father. father. father. waaye ok gars yi kon yaakaar naa ne leer na ñu bàyyi ci xel baax a baax phonétique dafa am solo moom mooy déterminer lan ngay liir exactement ci mot bi lan nga ci lire ak lan nga ci du lire. kon la dernière partie et la troisième partie moo nekkoon. grammar lan moy grammar intensive ñaar la grammar moy lan grammar mo moy xam-xam bi nan la bo jëlee par exemple mo la bo jëlee ab wax pour mu am mana da ngay am liñu wax subject verb object. do mo lan da ngay am sujet manam aji wax gi verbe moy mo moy jëm jëf ji mo moy di fi jëf ji dal fi ji kaw tum dal loolu noonu par exemple loolu noonu ab règle la grammaire te langue boo dem am na ci waaw langue boo dem am na ci wolof am na ci wolof am na grammaire anglais am na grammaire français am na grammaire ak tenses wolof am na tenses maanaam conjugation ak lenn nekk ak ko war a waxee temps a jëfandikoo am na ci wolof am na ci yeneen langue langue boo dem am na ci loolu mooy xam-xam boobu nag moom kenn du wax ne boo defee nii am ko déedéet dafa am ñu lay jàngal lan lay jàngal nag moo na ne boo defee nii da nga ko dégg mooy lan. mooy fexe ba li lay jàngale booy wax nga jëm di ko wax par exemple ngay wax ak kenn ci anglais del del bàyyi xel lan la jàngaloon nee la exemple ñu jàngal la present simple euh, present continuous present continuous ak present simple ah ñu nga ñëw ñu jox la par exemple ngay wax ak kenn mu ne mu ne la looy def fekk na yow yaa ngi yaa ngi lekk mu ne la mu ne loo nekk def nii nga ne ko naaw ay it non non loolu kenn du ko def kenn du ko kenn du ko wax. bu fekkee na daa fekk ngay lekk nga xam ne yaa ngi ci biir lekk gi te waxoon na la ne mooy bu fekkee ne action bi da nekk da ngay nekk doo xam ne defaale action bi moom mooy kon da nga ko now I ko wax ne ko now I am uh, eat déedéet loolu kenn du ko wax parce que now déjà day fii noonu ne mooy right now léegi instant bii ni ma nekk nii maa ngi lekk ok loolu grammaire moo moo koy déterminer waaye tamit. TEN6 moom moo koy appliqué maanaam les temps les temps maanaam kenn ku nekk temps bu nekk da ko war a jox baat bu nekk laa bëgg a wax action bu nekk da nga ko war a jox ak temps ba mu temps ba mu yellool loolu ñuy wax grammaire intensive loolu nag moom xam-xam la boo xam te ni si da nga koy appliqué ci wax ji di faral di wax anglais di ko di ko bàyyi xel di bañ a def ay faute anglais boo ko wax defal ay faute loola neex waaw mais da ngay bàyyi xel am na yenn faute yoo xam te ni si c'est pas pardonnable lu mel ni now ay eat loolu kenn du ko wax ça ne se dit pas kon diñ leen di wax rek ne leen euh, vidéo bi fii lañ koy yemale parce que euh, yaakaar naa ne les points yëpp points yëpp yaakaar naa ne ñëw nañ ci mu nekkoon grammaire grammaire rek moo ci gën a xaw complexe ak ak tenses parce que loolu du neex expliqué lu ñu lay wax loo xamante ni si duñ la koy jàngal nga mën ko appliquer loolu dong la kon dinañ fi def ay vidéo grammaire ak tenses ay conjugation par exemple la bëgg wax grammaire conjugation vocabulaire tamit def nañ ci ay vidéo ok bu dee nan ngeen consulté ko di ko xool day baax di fàttaliku parfois bu boo demee ba si ak nga ñëw seetaanaat ko fàttaliku waat mais wax tamit mooy ngeen gën bind di ko répété di ko répété di ko répété loolu dafay am solo répétition bi la la répétition est pédagogique répétition bi dafay tax mooy gën a yombal jàpp gi répétition bi dafay gën a yombal jàpp gi kon vidéo bi foofu lañ ko yemale tey den wax euh, ngeen abone bu baax a baax ci chaîne bi euh, yokk partage bi wax dëgg yàlla ñu leen sant di leen gërëm waaw gis nañ seen ni nga taxawoo instant bi mu ngi ci deux mille quelques abonnés di leen wax rek ngeen gënte jàpp bu baax a baax. Euh, di wax ba tey ne gis nañ commentaire yëpp wax dëgg fi yàlla gis nañ commentaire yëpp de manière positive wax dëgg fi kon di ñu wax ne rek incha allah bi ngeen gën a góorgóorlu jàpp ci seen ndax ndaxte loolu moo koy dëgëral loolu moo koy taxawal jaa ngeen jëf.